dama xëy jot ay message am ñu may laaj est-ce que Saint-Valentin dafa daggan ci lislaam ma ni leen Saint-Valentin bokkul ci lislaam waxuma la sax ñàkk bokk ci lislaam mais mbëggeel ci boppam dafa amul feet bu dee mbëggeel existé na ci jëkkër ak jabar bis bu nekk feet la war a doon ci ñoom kon ki ci dugg te amul borom kër da cay wàlliyaan mais bokku ci te ñi ëpp ci ñiy feete Saint-Valentin gën koo yanu amuñu fitu bindu ki ñuy bëgganteel parce que joxe nañ fu nekk seen xol yi seen xol yi moo raw Nescafé ndox mu tàng du ko romb fu mu ko fu mu ko fekk da koy seeyal imaginel ngay mbaraan cinq far Saint-Valentin jot nee ngaay dangay ngay féete mbëggeel te texte bi ngay bind amoo fitu bind ci tur wala ñu bari fi mu ne nii danga leen di yóbbu silence jusqu'à demain nga doog leen a indiwaat koy ndax ku dul sa bopp l'islam xamul feetu mbëggeel ñi yàlla dénk mbëggeel mooy jëkk